alors gannaaw bi nga waxee si Wally Ballago Seck euh, lu rafet si li nga xamante ni moom mooy euh, musique sénégalaise te defe naa ni appel bi nga xamante def nga ko yow mii di buur euh, dina ko bàyyi xel ndaxte moom day bàyyi xel Web Info waaye day bàyyi xel sénégalais yëpp waaye ñëw gannaaw Wally bu buñ nee Wally day bàyyi woy ba tey buur est-ce que duñu xoolaat artistes yi ñëpp bàyyi woy rek benn yoon parce que tamit Pape Diouf tamit dafa war a bàyyi woy bu fekkee Wally Seck bàyyi woy dëgg yàlla Pape Diouf war naa mun a bàyyi woy ndaxte Cocorico ba léegi super Superman Love mënul fexe ba indi disque d'or. loolu bul dugg ci détail oui loolu la Pape Diouf day bàyyi la mais wala booy booy. non non bul dugg day tourné day tourné rek booy. non bu mu dugg ci loolu Pape Diouf day bàyyi waay bu mu dugg ci loolu. question la waay waay. question la waay eh Aba non xaaral non non Aba question la booy coupé coupé booy question la waay buur. les gars yi ñoo gisandoo ah maak euh, Burutan gis ngeen euh, kii bi ah, moo nekk nii ñu génn nag gis nga mu daal di sànni xeer nii suma moto bi nii ba affaire bi toj nii gis ngeen moo nekk nii quoi. juste su may wax suma baat bi waaw mooy loolu quoi mooy loolu affaire yi dajeeku na nii gis nga. Euh, chauffeur ah, fissure yaa ngi nii ma yor nii quoi ak suma lunette bi nga xamante ne vingt cinq mille lay jar mi ngi nii quoi damm na waaw mi ngi nii yéen gis sama wax bëriwul nag quoi ne saa sama xol dafa jeex. waa waa gars maa ngi jégalu bu baax ah. xam naa ni man sama wax du bari quoi na sama xol dafa xaw a jeex parce que gis ngeen entretien bi lenn la laa si wax ne Pape Diouf day bàyyi woy parce que ñun dañuy liggéey question réponse quoi dama xaw a blessé fii quoi looloo tax su may wax nii sa sama fii dafay metti dafa xaw a néewi donc man dinaa jéem a def le tout quoi parce que lii du ma ko bàyyi mu sedd man def naa entretien def naa entretien ak ne kenn mësuma dóor kenn mësuma def lu ni mel kenn mësuma humilier donc nag buuru tan sécurité Pape Diouf wax dëgg fa neex yàlla dinaa ko porter plainte samay veere ngi nii nag aywa sama may wax sama fii day metti quoi sama veere ngi nii billaahi xolal damm na samay veer quoi Çolun koyalım. Çolun, çolun, çolun.